amul baat buy wax kaso ça veut dire que askanu pulaar amoon na neneen nu mu doon def pour jubbanti basari mais xamul kaso jaaxanke xamul kaso ñun ñëpp kaso la ñuy wax donc ça veut dire que ñun loolu day ñëw rek ba léegi ci domination bi même pour jubbanti pour pour corriger maison d'arrêt et de correction pour corriger maanaam soppi ci anam bu baax suñu ay doomu aadama ñu ngi ba léegi ci tubaab bi nu doon def maanaam kaso donc faut pas faut il faut que ñu bàyyi wax ci parce que genre wax lii nga wax sànq ne kaso mënul neex moo tax kenn bëggul kaas dama posé question dama ne ndax kaso buñ la privé say liberté war war na neex ñu ñu alors di mm-hmm. profité ci occasion bi di wax ne lii expliqué tamit situation kaso yi mooy dañoo manquele juróom benn téeméer attekat mm-hmm. Sénégal dafa am un déficit de six cent magistrats ah c'est vrai que yenn saa yi ñu dóor ñu mandat de dépôt waaw yenn saa ñu def lu leen neex. Mhm. mais lii tamit foog ñu xeex ko. te amul àttekat yu doy parce que président Macky Sall ak ñi ñu àndal toje lañ fi nekkee gouvernance toje mais loolu ça veut dire que secteur boo laal day métti mais ci biir kaso ci lay gën a métti ndaxte foofu amul micro amul caméra amul TikTok amul WhatsApp amul filmer du ay bu amoon. ay bu ñu filmé woon moo tax tamit may lancer un appel aux organisations des droits de l'homme ak yooyu bëccëg la ñuy dugg kaso en général. Mhm. ba pare ñuy fexe ba di leen di bët ñuy fexe ba du ñu dugg ci ci chambre yu métti déjà pour man huit ci guddi neuf ci guddi dix heures ci baaxoon na yenn saay ñun fexe ba di ñëw heure boobu heure u tëdd ci ngay xamee lan mooy kaso waaye bëccëg la ñuy ñëw. ñu fexe ba ñu dugg ci chambre yu xaw a tane yi. Mhm. déedéet. Mhm. nañu dem heure tëdd. heure tëdd ngay xam li fa nekk. Mhm. donc loolu euh, laa buggoon wax di wax ne euh, Fatou Abdou mbir mi du Guy Marius Sagna mbir mi du li may sentir. li ñuy def nii yëpp d'accord comme ni ko Pape waxee du tere xeex bi dañ koy continuer. absolument il faut que ñu am beneen Sénégal. il faut ñu am beneen Sénégal il faut ñu am beneen Afrique te loolu daf ñuy jaral sax ñàkk suñu bakkan. daf ñuy jaral d'accord ñu ñuy def taatu neen ak ñoo xam ne yaa leen mag. Mm-hmm. buñ ma doon def taatu neen junni at du tax ñu continuer xeex lu ñu war mm-hmm. xeex. Mm-hmm. donc loolu mooy wax ci et mbir mi du mbiru Guy Marius Sagna li may naan xaw ma mais dix minutes mille francs mais bi ma génnee rëbës waxoon naa ko fi. lii scandale bi mooy rëbës 2019 laa fa dugg vingt 2021 deux ans plus tard ñuy fekk dix minutes mille francs. mais sa c'est scandaleux foog ñu soppi ko foog ñu changé ko mais profité ci occasion bi di rafetlu taxawaayu ay directeurs yu mel ni lieutenant si ca Sébikotane d'accord xëy na lépp ñoŋul xëy na lépp baaxul dépense bu ñu leen di jox pour ñu leen dénk ci biir kaso yi ñu yore leen seen dépense doyul mais am na ay agents pénitentiaires yooyu am na ay ñoom colonel Bokandé ay ñoom lieutenant si ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ñooñu dañ leen war a jàppale dañ war a dooleel te ñun ñii xëy na ñenn ñi ñu mere mais ñun bokk nañ tamit ci suñu wax ci suñu critiquer ci ci wax li nga xam ne moom la ñu dund bokk nañ ci liy ñoŋal la preuve moom laa doon wax sànq tey jii nii les agents pénitentiaires du mekki du Cap Manuel mais prix ñuy jëndee ci boutique bi mais wàññeeku na lu tax cinquante sept heures de grève de la faim donc vingt huit heures de grève de la soif parce que dama leen ne ndox bi ngeen ma indi du ma ko naan fekk gisuma détenu bu ma wóolu ñu bàyyi ma 27 heures lekkuma naanuma bi coow li foore ñu xam ne caaxaanuma après 27 heures lekkuma naanuma ñu soog a indi kenn Jean Étienne ma koy rendre un hommage di ko gërëm mu ngi encore kaso si bi ko ci la ñëw jël sama butéelu ndox indil ma ko ma xool ko ma wóolu ko ma soog a naan 27 heures. lekkuma naanuma 57 heures lekkuma loolu moo tax tey agent pénitentiaire yu nekk Cap Manuel d'accord di jëndee à des prix normaux donc ñun Macky Sall du suñu noonu policiers yi du suñuy noonu gendarmerie yi duñu suñuy noon agent pénitentiaire yi du suñuy noonu suñuy noon xam nga mooy lan nootel te dinañ ko xeex ba jëlee ko fi c'est clair Cheikh euh, condition détenu yi euh, régime yi fi jot jaar yëpp sénégalais yi dañu ko ŋaññ ku dugg kaso boo génnee loolu bokk na ci combat bi nga xamante ne di nga ko wax ba ñëpp dégg ko wala nga dugal ci sa loxo euh, bu ñu tollee ba fii mu mel ne régime bu ñëw wutul pexe ngir peut-être désengorger les prisons mais également teg leen ci ay conditions yu baax lan nga ci wax. waaw soxna si est poignant. je voudrais juste adresser un message à sa fille pour lu dire que tu peux être parce que qu'il s'est sacrifié pour notre idéal, pour notre Sénégal. Il est toujours debout. C'est un homme digne qui répond à l'appel de, des populations et il combat des causes nobles. Donc, euh, tu peux être fier de ton, de ton papa. Alors, Lingawani, Victor Hugo, d'abord, euh, ouvrez les écoles. Ouvrez des écoles et vous fermerez les, les prisons. dem naa benn dëkk euh, Lyon fi kaso bi nekkoon booy ñëw dañ naan la fi kaso la woon léegi université la lu tax tu es gagné par l'émotion wala. waaw je, je suis très touché parce que euh, euh, humainement dafa am yoo xam ne c'est dégradant parce que xam nga tey suñ lay wax maison de d'arrêt et de correction man dafa am nu mu ko woowee maison d'arrêt et de stabilisation tu verras des délinquants mineurs xale boo xam ni man mii mus naa dëng Pape Matar mus na terrible booy kolobaan la mais amul une seconde chance noonu ñu ko jëlee. mu nekk délinquant mineur dix huit heures dix huit ans foofu lañ koy duggal mu dem dajoog ñeneen am na koo xamante ni fi eggul woon feneen mais ci millier boobu muy nekk ci cadre boobu muy nekk muy cadre de survie ci lay amee fit amul une seconde chance bu génnee amul insertion sociale guy laa di boo duggee kaso boo génnee ñu ngi lay xoolee bëtu kii defkat la régime yëpp waa ah, sunu maam Mamadou Dia je crois que pour ñu yóbbu ko ci kaso Kédougou lañ ko yóbbu pour pour l'histoire pour ñun suñuy ndaw li ñu xam loolu il a perdu même gis-gisam l'usage saa ses yeux fukki at ak ñett bi De Gaulle di ñëw Valdiodio bi doon liir discours bi Valdiodio Ndiaye foofu lañ leen yóbbu ci kaso bi et d'autres personnes mënuñu dellu ginnaaw mais xam nga li ci gën a garaaw euh, du ki nekk ci kaso bi sax moo nekk ci kaso waa këram sax dañu nekk ci kaso barki démb am na sama benn dëkkandoo soxnaam moom wone ma sama borom kër mujj nañ ko bàyyi ndaw dafa gore lool am na ñoo xam ni metti nañu toog mais parfois du woon am sax ñaar fukk bu mu xëyee surtout que war na wut lu mu togg war na transporter war na dem ci kaso bi jox boroom këram bokk ak avocat yi yéeg ak wàcc mais li ci gën a garaaw sax mooy ñi ñu tëj àtte wuñ leen fàtte leen fa ay longue détention préventive ñu nekk foo xamante ni liberté liberté moo war a nekk exception dafa doon neex sax ñu change suñu système judiciaire balaa nit di nekk juge wala procureur ñu dugal la ci kaso yi nga ñam ko ba pare nga xam la mooy kaso quoi parce que moi je crois que Macky Sall musul dem violent wala musul dem kaso comprendre lu ñu xam nga doomu aadama yàlla sax moo ko wax ci alxuraan wala xadd karam naa bani aadama li mu gën a fonk mooy doomu aadama farab nit donte sax rey na nit dafa am ay droit tëj nañ la ci kaso taxul am nga yeneen liberté am nga sa ay droit am nga sa ay dignité mais am nga ñi li ñu doon wut c'est cassé moralement psychologiquement c'est-à-dire dinañ la def taatu neen dinañ la jagat jagatee yow balaa ngay dem kaso sax suñ police yi violent ba xasaw gi fa nekk saw saw bi comme asib déjà foofu rek ci biir police bi auto police yi buñ la ravancé sax buñ la ci dugalee policier bi buy daw doo daan lay maasaale sa ndong li yëpp ci tubaab bi la jëm parce que système colonial boobu la ñu woon la prison de Rebeuss a été construite en 1939 figurez-vous en 39 suma xam ni daan am na kaso Guy Marius moo tax ma xam ko fa laa gis dessin yi ak ay ay tuiles bi mag Sall ñëwee cartographie kaso yëpp ñëpp xam nañ ko léegi xam nañ ni léegi Rufisque am na bu jigéen ñi d'ailleurs bu jigéen ñi jigéen tey dafa am yu muy soxla muy hygiène ñi nekk ci kaso bi dañuy am jafe-jafe pour am ko moo tax parfois solidarité bi da ciy baax sax ku ci am na leen dimbali ay service hygiénique nga yóbbul leen ko pour des questions de dignité wala Cap Manuel wala camp pénal am na ay ñu ciy yëngatu mais xam nga euh, li li li li jeexal suma xol sax mooy tey Boubacar Seye si vous l'avez vu si sur son récit la seule question qu'il a posée c'est une question de de principe sur la bonne gouvernance Union européenne injecté na xaalis bu jëm ci wàllu immigration nga posé ko question ñu jagat jagatee ko jël ko aéroport dugal ko ci ay conditions muy lekk ay jaga génn jële ci feebar ñaata nit ñoo nekk pavillon spécial gis nga bu fekkee ni jàpp ñu ni ni doomu adama yi ñu nekkal ay citoyen lañ dañu am ay droit ñu war ko fonk war ko respecte mais euh, il faut comprendre que tey Guy aujourd'hui il porte le combat des prisonniers comme moom comme ñoom Fou Malade comme ñun ñëpp parce que kaso jombul kenn bu ñuy teg jingalu grande gueule bi dañ may tooñ ah, man de damay bañ ku ma yóbbul añ dinaa ko bañ mais jomb ma parce que dañu nekk ci Sénégal régime boo xamante ni régime policier lañu am bu ñu fi waxee état d'urgence sanitaire état d'urgence policier la ñu am li ñu fi indil ci bilan mooy c'est liberticide li ñu fi indil nit ñi mooy xoqatal nit ñi na nit ñi noppi bu kenn yëngu wala bu kenn wax te le Sénégal ne mérite pas ça Macky Sall joxuñu ko réew moo xam ne amul woon démocratie et il a parfaitement raison de le rappeler parce que Ablaye Wade bu jëloon ay adversaire am tëj leen ci kaso kon tey moom du nekk président lii ñuy xaar ci moom li tax nit ñi ñu bëri ñeewantal Sonko ah je parce que jaan bi màttoon ñële màtt ñi lan moo tax Sonko eggul foofu. Mhm. parce que yuuxu bi mu jógee nit ñi jóg dox si digganteem moo tax. et il a parfaitement raison avant Sonko lañ leen téye woon dommage collatéral la kon nan la ñu mën a joxe kon Sonko contrôle judiciaire suñu politique carcérale le ministre de la justice maa ngi koy dégg muy wax ay waxu bracelet Sénégal li fi gën a yomb mooy ñu teg la loxo. Mhm. même alkaati bi ci mbedd mi sax pour moom. uniforme bi mu sol il est au at ton service. parce que mm-hmm. yow citoyen bi yow la fi war a nekkal. Mm-hmm. et ce risque qu'il ñoom ñi jiite réew mi xam nañ ko député yi ñu am assemblée xam nañ ko ñi fi nekk xam nañ ko mais dañ ko bëgg bàyyi condition déshumanisée ñi fay dugg moo tax chaque fois da ngay gis nga duggal nit ci jeel mu génn mm-hmm. boomaan ne dellu parce que amaatul beneen survie amaatul beneen sens ñii amuñu lii ñuy def nii du yërmaande du sax yëfu nit alors Ibrahima euh, c'est vrai que bu ñu waxee prison mooy xañ la sa ay liberté euh, moom moom la ñuy wax mais xañ la sa ay liberté terewul nga dese sa ay droit ba tey euh, explication bi ak récit bi nga xamante ne Guy Marius Sagna def na ko fii wane na condition encore yu ñu déggaat yu inhumaine yoo xamante ne détenu yi ñu koy dund ci biir prison yi ban jàngat nga am ci loolu gis nga droit doomu aadama dama jëkk jàpp ne dignitéem la pour benn ancien prisonnier du ma tudd turam nee na guy dañoo fàtte matt yi ak fel yi nga xam ne moo leen di moo leen di sonal ci kaso bi maa ngi lay nuyu. droit doomu aadama dignité la te dignité doomu aadama bu mooy mooy mbalaanu suturaam nit ki nag boo uññee mbalaanu suturaam rek daanaka soppi nga ko lu raw sax mala parce que suñu borom dafa ne wala laxat karam naa ba ne aadama doomu aadama gën gën ci lim bind kon doomu aadama war ma rek a gën ci moom mala ak nit fu ñu wutee mooy nit day xalaat mala du xalaat et je crois que ñi jiite kaso yi dañuy xalaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy atte ñi ñuy jàpp dañuy xalaat te xalaat bi gën mooy xalaat seen diggante ak seen borom xam nga sànq gi bi ñuy tàmbali dama ne dama bokk ci benn association boo xam ne lii ngeen di kaas nii ñun moom la ñuy xëy ñu ngi ci presque onze ans d' existence donc je salue Ndiaga Seye moo xam ne moom mooy le président de l' association muy prison jigéen ñi nekk Tëngéej dem nañ fa muy sëbi pont bi ngay wax dem nañ fa je suis le chargé de communication de cette association Ilhamou Salam en arabe ARP en français camp bi dem nañ ko et je prends en témoin ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso nga ne jaar nañ fa yëpp bokk na ci bu fekkee détenu day ñaan transfert bu fekkee dëkkoo Dakar day ñaan transfert pour dem sa dëkk yow yaa jël en charge sa bopp transport bi lay yóbbu suñu association bëri na ay détenus yoo xam ne bu ñuy jokkoo ak ñoom dañuy fexee def lu tout ba bu ñu bëggee transfert ñu jàppale leen ci ba ñu yóbbu leen mais bu fekkee péni direction pénitence moo lay transféré moo lay jël en charge xam nga kon ma am na loo ne xam naa ko ci. conditions yi ne ci kaso yi ku nekk xam na ne métti na da nga ne mosuma dugg kaso ma ne ñaanuma yàlla dugg fa jombul kenn jombul kenn te dugg fa taxul nga bon. am na nag ñoo xam ne seen duggum kaso mérite la fekk nit kuy dox nga rey ko fekk nit kuy dox nga agressé ko nangu alalam fekk koo xam ne ay nagam ak xaram la yaakaaroon di ci dund nga jël ay nagam ak xaram dem ak moom loolu ci yoon teg daan goog daa war ñi ñuy naqarul seen situation mooy ñi nga xam ne dañ faa yàgg te àtte wuñu te yoon war ciy jóg ñooñu li ñuy wax ñi nga xamante ne